asalaamaaleykum les militants et sympathisants de Pastef man la Mame Faye Gueye maa ngi nekk membre di bureau section communale Pastef Grand Yoff responsable aussi de daaray Cheikh Anta Diop de Pastef Grand Yoff li tax tey rassemblement bi foofu lay ñëw tey li ci waral tey ñu rassemblé wu fii li ko waral lenn la section communal Pastef Grand Yoff bi ñu nee ñu ngi jëm ci élection législative ñu ñëpp dañoo dajaloo base bi moo dajaloo bi ñu dajaloowee ñu def suñu benn réunion bu mucc ayib ñu ñëpp par consensus su ma nee consensus amul benn loxo bu yëkkatiku opposé wu ci décision bi nga xam ni moo fa génnee te décision bi lenn la mooy ñu ñëpp dañoo choisir suñu coordonnateur Babacar tàmbitu ne moom moo ñuy représenté au niveau département de Dakar pour ñu investir ko pour liste euh, élection législative yi di ñëw amuñu amuñu ñaari candidat amuñu ñetti candidat pour loolu il faut mu leer ci nopp sénégalais yi ñuy dégg benn candidat lañu am mooy suñu coordonnateur Babacar Tambidou moom la section bi yónni ne ko yow yaay porter suñu voix yaa ñuy représenter à l'Assemblée nationale donc bu ñu xam ne amee nooñu loolu par consensus ñun gisuñu kenn laa la kenn ko war a mën a taxaw ne moom du bokk ndaxte dafa am ki nga xamante ni moo jiite JPS Dakar ba pare nee na nee nañ Grand Yoff la dëkk comme kooku day dugg en tant que mouvement donc Babacar Tambi du dugg day génn loolu lañ ñu jox comme information ndax ñaar mënuñu investir ñaari nit yoo xamante ni ci même commune bi lañ dëkk mais ñun damay dellu ci sama wax bu njëkk ba ñun benn candidat lañ am benn candidat la section bi jël mooy Babacar Tambidou beneen candidat ba ñuy tudd nag ne il faut ñu investir ko sous la bannière de euh, JPS e Dakar suñu yoon nekk ci lijjantiwuñu ko faluñu ko ma ma nga woon toog ci assemblée ba te faluñu ko du moom la ñu choisir Babacar Tambidou la ñu choisir loolu il faut muy leer ndax Pastef dafa am loo xamante ni moom lañ fiy xeex yàgg nañ ko fay xeex opposition ba léegi Grand Yoff nag du commune bu ndaw ci biir Dakar depuis opposition ba léegi ñun kenn du bind histoire Pastef Grand Yoff de Pastef de manière général te section communale Grand Yoff du ci bokk la preuve en est panel bi ñu def le 11 passé defal nañ leen vidéo retracé en quelques minutes si ses wax li nga xamante ni fala la Grand Yoff jaar te loolu sax lépp mënuñu ko retracé ndax li fi nekk dafa bari du lépp lañ mën a wax donc ñun c'est pas la première fois ñu ñuy léser nag ci ay élections ça ce la troisième fois au cas où dafay jàll te nag dañ dul seetaan sax mu jàll c'est ça pour arrêter l'opinion nationale ñu xam li nga xamante ni actuellement moo nekk di xew ñu mën dès maintenant jël ci solution balaa muy weesu looloo moo ñu fi indi nag pour tey wax ak askan wi ñëpp xam tey lan moo waral suñu rassemblement bi fii gis nga section bi responsable yëpp ñu ngi taxaw lii wone ni rek par consensus li ñuy def nii ñun dañ ciy dégg dañ cee déggoo lii laa amoon lu may joxe comme information bàyyi ki nga xam ni moo yore communication mooy mool mu am lu mu ci sànni maa ngi leen di jaajëfal bu baax. merci. waaw salaamaaleykum ma leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant damay présenté wu Mamadou Moli chargé de communication PASTEF Grand Yoff donc euh, déclaration bi ñuy def ni li ko waral lu yomb la moo ñun dañu am njàqare dañu am métit suñu xool dafa jeex te ñun nag suñu métit kenn teguñu ko benn nit ci parti bi moo ñu ko teg nit kooku Abass Fall la tudd mi jiite coordination départementale bu Dakar suñ digganteeg moom nag tàmbaliwul tey ñun Abass Fall amul élection bu fi jaar li ñu séq mu teg ko ci yoon dañu toog ni ko sénégalais yëpp gisee le vendredi dans l'après-midi circulaire génn ci parti bi wax ni au niveau des départements na base yi waxtaan tànn seeni candidat buñ ci paree ñu jàllale ko ci coordination départementale bi bu consensus amul ci candidat ci candidat ñu transmettre ko instance supérieure fii ñun Grand Yoff bi ñu dajee suñu biir membre du bureau yi responsable de cellule yëpp ñun ñëpp ci lenn lañ d'accord mooy ñun ak coordination départementale de Dakar bi nga xam ne Abass Fall la ko jiite ñun am nañ historique ñun xam nañ ni yëf yi ay magu yi da ci am du ko teg ci yoon moo tax kafuñu ci reewuñu si dañ ne dañuy fatt fépp fatt fépp boobu moo waral réunion bi ñëpp dañu taxaw ni na benn candidat am parce que du ñu nangu mukk ñu naan Grand Yoff de yéen jubóowu leen seen biir di ko jël prétexte pour génnee ñu ci candidature yi et naturellement le coordinateur El Hadj Babacar Tambédou yëkkati loxoom mais à l'unanimité kenn yëkkatiwul sa loxo ñëpp wàccee seen loxo ñu acté suñu candidature hier dans l'après-midi coordination départementale bi fii dajaloo siège ñu war a tànn ci candidats yi am dakaar ndax consensus am na ou pas bi ñu ñëwee di waxtaan mais 19 communes yi am Dakar yëpp mais grave kese moo indi benn candidat toutes les autres communes mais ay dizaines de candidatures le coordonnateur bu nekk indaale waaye yow mi ñëw yow kese indi ay ay ay ay candidat à la candidature nga indi seen i pièces candidat la candidature yooyu ñoom présent wuñu bu ñuy wut consensus da nga koy def seen ginnaaw wala dañu war a teew ñooñu teewuñu ñu bëgg établir sur place Abass Fall avec sa clique de coordinateur à Dakar des critères nit ñoom dañuy def. le tri ñoom ñooy créer critères yoo xamante ni moo leen di permettre ñu def choix sur les sept députés de Dakar taxaw xool ñu ñun waa Grand Yoff ñun ñu am benn candidat ñun ñëpp ñu d'accord si ni moom la ñuy investir ci liste yi mu doon député ñu ne ñu du bokk ñu laaj leen lu tax du bokk ñu ne ñu parce que JPS Dakar dafa war a am candidat ci liste yi. ñu ni déet ñu ni ñu parce que sax candidat bi may ma ma yeggali bu ma yeggalee dinaa la may nga laaj ma li nga bëgg laaj yëpp je veux faire juste le récit ñu ni ñu candidat bi Grand Yoff la dëkk soit boo ñu bëggee éliminer ndax suñu candidat grand euh, da nga am da nga tànn candidat bu dëkk Grand Yoff waa Grand Yoff ñoom tànn nañ seen candidat donc mënoo ñu éliminer te ñun am nañu candidat en fait je n'ai rien contre la candidature des jeune de Dakar en fait c'est pas mon problème bu ñu ma transférer un problème que je n'ai pas ñun waa grève bu ñu transférer problème boo xam ne ñun suñu yoon newu ci comment ils vont faire la liste départementale suñu yoon newu ci au niveau de la coordination départementale tout ce qu'on leur a demandé de trouver un consensus à l'absence de consensus nañu transmettre dossier consensus amul noon nañ transmettre dossier la forfaiture nag ne passera pas critères yi ñu fi teg vote biñ ne dañ ko fi organiser pour éliminer la candidature de Tambédou ñun waa Grand Yoff du du ñuy bàyyi xalaatuñ ko gis nga li ñu daj ba régime bi ñëw au pouvoir nous travaillons à consolider la victoire hautement acquise le 24 mars bi ñu jóge nekkuñu ci logique gu gedd ak xuloo ak bàyyeeg démissionné newuñ ci logique boobu dañuy battre campagne xeex ba gën a dëgëral nguur gi gagner législative yi haut la main mais li jëm fii ci parti bi li jëm ci coordination départementale de Dakar non Abass Sall ki ay tappaleem day dakk loolu day dakk jub jubal jubbandi ñun waa GRAF ñun dinañ jubbandi waa coordination départementale de Dakar ab El Hadj Ababacar Tambit dañ koy delloo ci liste yi par la force ndax ñun ñoo ko tànn caaxaan yi caaxaan yi caaxaan yi dafa war a dakk dafa war a dakk consensus amul Dakar nañu transmettre les dossiers de candidature coordonnateur nag yi ne newoon ci réunion bi naan dañuy tappale ànd ak Abass Fall naan dañuy teg ay critères yu leen di permettre ñu dugal nit ci liste bi di génne nit ci liste bi dinañ jàkkaarloog ñoom. faale wuñ leen ah. dañoo bokk parti nekk ay camarades de parti joxante cër respecté ñëpp nag mais amuñu complexe kenn ñun Grand Yoff lenn rek la ñuy réclamer nañ ñu jox suñu député man responsable la Grand Yoff kii responsable la man ñemewu ma tiim. les militants de grève ñu ni yéen lu amu leen député ñu ni yéen responsabilité ku ne yem moo bëggoon nekk député yëkkati loxo ñeme wuñ ko ñàkk koo ñeme moo tax ñu tànn benn nit mënuñoo tànn benn nit juboo suñu biir ay nit yu juboowul seen biir ñëw parce que dañoo bëgg poste di complot naan dañuy génne ci liste bi duñ ko fi nangu tey duñ ko fi nangu ël ñi jël ñi nekk kilifa parti bi nañ jël seen responsabilité ci lii ñun waa grève ñun Abass Sall duñ ko seetaan on va l'arrêter on va dinañ ko arrêté par A ou par B amaluñ benn njëriñ te ñu toog fu mu toll diñ teg ay toor donc loolu mooy déclaration bi nga xamante ni bëggoon naa ko def di woowaat tous les militants de Grand Yoff à la mobilisation nañ ñu delloo suñu député wax dëgg yàlla pare nañ pour cotiser denc nañu xaalis suñu yaram tàng na dañu war a campagne dañu war a gagné xoolaame Amba Abass Amba Abass Fall Amba Abass Fall donc déclaration bii laa bëggoon def jërë ngeen jëf